Touba ci kanam. ku ko ci xam. dugal naa ji téeméeri junni. lu ngeen may sas rek naa ko sasoo. maskani Touba baat mi abijaayi xayri man abaat. Touba kanam moom ku ci bokkut xaw man looy bokk. ñii nga dégg ñu naan bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi léegi badar amut Touba kanam am. ah ñoo ko sikkar di ko wax bu doon badar dañuy jeex ba góor du ñibbi badar nag bakkan lay laaj te ngërëmul yàlla lañ doon sàkku lil fuqara muhajirina alladina uxriju min diyarihim wa amwalihim yabtaxuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruna allaha wa rasula ulaika hum sadiquna nag ngërëmul yàlla loolu ñu ngi koy dakkee ci Tuuba a kanam ay xeej ak i ñaw koy jeesee ki fett la woon tey jii booy def muy am kon nag bu fekkee ne boo fekkee woon badar doo daw da ngay jeex kon nag bi nga fekkee Tuuba a kanam noo bëgg def loolu am laaj la bu ma lay laaj yow mii di taalibe bi tey mu wóor na ne boo fekkee woon badar sëñ bi xeex da xeex léegi sëñ bee war a jëm ca kanam nooy def yow maa ngi lay laaj loolu yow murid bi lan mooy sa xalaat ci bu doon badar dañuy jeex Tuubaa ca kanam mooy def ko liggéey boobu nag mbokk yi bëgg ñëpp barkeelu ci tax na Touba ca kanam di fàttali mbooleem taalibe yi ne daañu leen yombalal ngir ñu mën a joxe seeni i barkeelu fi ngeen ko baaxoo mën ngeen ko faa jaare moo xam muy ci Orange Money ngeen def dièse 144 dièse 621 jeex mu tegtal leen ngeen yónnee seen barkeel wala ngeen mën a jaare ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 ak Touba ca kanam yàlla ñu bokk ci ñi jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam